lundi 24 février 2020 ñëw ak seen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la journal record wala yëglekaay bi nga xam ne nii moo di Leewtoo TV wala sax fa nga xam ne nii moo di Les Échos fu nekk tey xibaari làmb xëy na fa bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom li mu xëy di laaj mooy CNG lu fa dugg lan moo fa xew ndax nag nit ñaa ngay démissionné di génn di dem seen yoon ginnaaw Cheikh Tidiane Ndiaye yëglikaay bi ne kii nga xam ne nii day moo di baaba Babacar Seck moom itam rocceeku na ndànk dal di génn moo tax nag mu xëy wan ñu aw foto ne lu fa xew day laajte Bombardier nee na ko daal li leer ba leer li fa xew lenn dong la Bombardier xëy na wax ay dëggam de nee leen li xew mooy état bi ci boppam moo war a jël CNG bi ci ñu ko yor jox ko ñeneen ñu ne ko déet waaye bomb ne looloo war a am parce que nag mbir yi ni muy doxee jékkul jaaduwul loolu mooy wax ki nga xam ne nii moo di Bombardier Bombardier ne na li leer ba leer CNG boo bëggee dégg-dëgg yàgg naa ko wax lamb moom ak mesures yi ñu ci jël ni moom boo bëggee dégg-dëgg Bombardier ne na rey nañu ko wala boog crise bi sax daa jàpp ne ñoom am nañ ci responsabilité bu rëy rëy rëy ñoom ñi ñu dénk li nga xam ne nii moo di lamb ji ne na léegi lamb ji ambiance culturelle bi ne jeex na mbër du sotte yenn butéel yi doo taal ne na leen luy taaral làmb dootoo ko def lépp ñu jël ko tere ko moo tax Bombardier ne moom bu bëggee dégg-dëgg wala boo bëggee dégg dëgg-dëgg daal bu dee amee ña ko mooy ñi nga xam ne ni ñoom la ñu ko dénk yamu ca ndax na ne ne wàllum recours yi wax na ci boom na ne li leer ba leer vingt cinq mille donte bëriwul d'accord xanaa ci boo gagné sa recours waaye nee na boo ko perte itam dañuy maanaam sa vingt cinq mille da koy ñàkk ñoom ñoo koy jël te daa jàpp ne loolu jékkul jaaduwul te sax tegut ci aw yoon ñu ne ko de na waaye boom na yemu fa ndax nag leneen loo xam ne nii naqare na ko nee na amul ci àddina bi benn sport du FIFA du CAF boo xam ne dañ lay ay appal ay at naan la trente quarante cinq ans ngay am daal di génn ci làmb ca sport ba nee na amul fenn nee na ci làmb ji dong la am Bombardier daal tey moom tamit xëy na ngar daaju yëglikaay bi wax fa lu leer nañ wala boog dal ci kaw ñi nga xam ne ni ñoo jiite làmb ji keneen koo xam ne ni moom xëy na ngar daaju ab yëglikaay muy Lac de Guiers numéro deux mu nga ci yëglikaay bi nga xam ne ni daal moo di leese ko Lac nag diggante Boy Niang ak Balla Gaye moom ku koy wax bu ñëw ci moom booye boo nga dëpp ndax daa jàpp ne loolu dafa jaaduwut te du nekkul ab combat na Boy na wuri leneen te bàyyi Balla Gaye 2 du moromam tey suba waxi noppi nee na moom boobu combat d'accord ci tey suba waxi noppi mu nga ca leese ko lag moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii moom la lag tudd muy Balla Gaye 2 mooma nag yëglikaay bi ñëw na ci moom nee na moo Reug Reug ak ñu mel ni ki ñoom daal boo bëggee dëgg-dëgg ay vainqueur lañ yoo xam ne nii day fi mu nekk nii saison balance la ñu gën a jeg gën a jegeñ maanaam gagné combat ba pare bëre dal di lay të te nee na boo seetloo ña nga xam ne ñoom lañ ko seqaloon maanaam ña daanu ñoom ku ci ne am na ci loo téye bu dee Gris 2 la ma Reug Reug daanoon am na combat mook Abdou Diouf Modou Lo ba ko Balla Gaye 2 daanee da caa jóge jël Eumeu Sène daan ko nekk roi des arènes ñu ne déet ne waay mu amaat Ama Baldé Sa Thiès ma nga xam ne itam daanoon nañ ko te Boy Niang defoon ko ko moom itam fi mu nekk nii day boo bëggee dégg-dëgg daa mel ni prince ay affaire keneen koo xam ne ni amoon na ndam moom itam bëre tëg ko tëj muy de moo tax yëglikaay bi di record daal xëy na tey ñëw boobu jàngat ñi am ay ndam fi mu nekk nii daa mel ni daal combat moo leen di tëj tëj ña nga xam ne ñoo daanu mu mel ni ki ñoom am nañu ay combat wala am nañ ci lu ñu jàpp Gris doo moom yëglikaay bi dina ko doon koy dànkaaf ne ko tee ngaa def ndànk am na lu lay yot de maanaam Gris daal bu xamoon la koy yoot dina bàyyi li muy yot ndax li koy yoot yëglikaay bi ne du lenn lu dul année toog bañ a bëre wala boog muy nekk ñaari at yu tegalantoo ci moom moo tax ñu koy dànkaafu waaye dañu fay toxoon nag dem ci Leewtoo TV mu mel ni kii nag samedi yu ñu génn moom Fallou Ndiaye ñëwoon ca arène nationale ak caatu yaraax ak serpa waaye li leer ba leer daal combat ba ñeenti seconde la diire serpa jàpp caat kanka xam ne nii wala boog caatu yaraax jàpp serpa sànni ko fële jéggi ko dem di laaj lu gën a diis nee nañ ko jox lu gën a diis a des ndax lii daa oyof trop ci moom dimanche ji itam nu ñëwaat peut-être ci Leewtoo TV ka ñëwoon nag mooy Mouhamed Diop ak Diamond Evans Mouhamed nag jam jam téeri bu Kayar jet li la ñu andi loon combat bu méttee méttee métti bëri xeex bari bëre waaye li leer ba leer nag jamteer yi daal moom mujj daan ca géew ba loolu la ñu yëglekaay yi xëy tey wax waaye ka nga xam ne nii nag mooy jet li moom bañ na lànk naa ko kandaare ne na kii balaa may daan teg na fesam bu yàgg daa tëdd door maa yeggale te jet li jàpp na ne daanu daaneel manta am moo tax ba tey bu ñu demee ci Leewtoo TV ab mënaat seeram di Pape Diagne ma ko yor ne na li leer ba leer moom kii di yi na jàpp mook ña mu àndal ne daanu na ba pare door a daan sama mbër moo tax daa mel ni recours daal la ñu fas yéenee def yëglikaay boobu ñoo xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne nii moom ñëw na muy loo xam ne nii amoon na ci weekend bi muy lambi simple ji mu mel ni nag arène Adrien Senghor moom ka fa teg tànk moo di ki nga xam ne nii moo di caaka fay lañ fa tegoon daal moo ko jël yóbbu ko keneen koo xam ne nii moom lambi simple la ubbee ñu naan ko los production waaye daa mel ni nag bëgg na daal def galaaw lit simple los nag moo dëkk mbuur maanaam daal loolu mooy ay mébétam waaye li doy waar ca lambi ji nga xam ne nii moo doon samedi ardo mbër ardo ma nga xam ne moo daan daal ardo daa ñëw andiwul protestant dem abbi protestant ca meleenu moroomu mbërëm mooy lu doy doy waar maar mbër mu ñëw sans protestant ñëw ne abal ma protestant ñu aal ko mu monte bëre daal di daan loolu doyul waaram naa ma dafa xëy dala ki nga xam ne mooy lancé roi des arènes euh, di Bombardier ba maj daal la gis daal si interview moo xam ne moom la accordé waa sunu war a jox euh, dafa a euh, jël CNG bi jox ko ñeneen jëlee ko si xam ne mooy Alioune na ji dañ ko waxtaan tey lamb ji ñu traversé crise bu métti métti te moom nee na fas yéene su fekkee ne ren nag amul combat Babacar waaw mu mel ni tey daal xëy na wax lu yaatoo yaatu que ni lamb ji CNG bi dañ ko a jël ci ñi ko yor jox ko ñeneen parce que daa jàpp na xëy na doxalin bi normal la waaw loolu nag moom defe naa acteur la tey defe naa ay at mu ngi ci làmb defe naa lu war a mat vingt ans sax xanaa war nañ ne ko si làmb wala lu xaw a jege kon yaakaar naa su xëyee waxee noonu xëy na am na lu tax muy wax waaw mbir nag mu mën a doon yow mi ciy wax li tax nga ciy mën a wax mooy day am loo ca xam ndax bëri na xam na règlement dagg nañ ko def nañ ko nangam ak i nangam ah li li am solo nag ba am solo mooy xay na tey ñu jiite làmb ji wala dooru Alioune yàgg na fi ndax yaakaar naa ne xaw euh, ma 92 la woon. 24 ans 80 92. Euh, ba tey ñaar fukki at ak ñeent. kon xëy na moo tax am ñoo xam ne gis na dafa war a dem te itam nag mbir dina toll foo xam ne nii moom la cay gën sax mooy nga dem defe leneen ñu utaat ñeneen ñu bees comme nit ñi actuellement ñi ci ëpp lu ñuy wax loolu la ñuy wër waaye li am solo daal mooy ak ku mën a ñëw itam. na nga booy ñëw rek yàlla na doon liggéey ci lamb moom ñoom ñu fi nekk itam yaakaar naa ne du ma jàpp ne li muy def lépp ko bon am na ci lu baax xëy na dafa fekk ne daamu a mm-hmm. nag nee nañu tey Alioune Sarr moom nit ne am na na sàpp si CNG moom nag nee nañu CNG lan foofu seen problème ndax démission yi bëri na trop ki si njëkk mooy Pape Mayel premier euh, démission bu ñu enregistré mooy Pape Mayel nekkoon trésorier mu nga xam ne mooy seen ki si topp mooy Cheikh Tidiane Ndiaye Cheikh Tidiane Ndiaye nekkoon premier vice président keneen ki nga xam ne moom mooy bàyyi moom moo bàyyi moom mooy Babacar bi si bureau bu bees bi nag ki nga xam ne mooy Yékini leen ñëw daal jaxasoon trop foofu si CNG la moo tax ñu war a xoolaat toogin bi rek waaw moo tax ñu war a xoolaat bi parce que itam ay kilifa ñooñu ko am nga responsabilité bu ñu la dénkee na am na ay raison la tax nag ñoom ñoo xam ko nga ci biir waaye nag bu fekkente ne euh, nga nit ki am na ñoo xam ne bu ñu démissionné dañuy démissionné noppi du ñu wax lu tax ñoom ñu démissionné am na ñoo xam ne nag tey bu leen laajoon mën nañu ne kat lii tax ñu démissionné maanaam soit amuñu jot wala liggéey ba na muy doxee neexu leen wala boobu ñoom dañoo jàpp ne mënuñoo servir lañ leen fa tey mënuñu koo def parce que démission bu ne rek am na ay motif waaye li solo CNC bi yore làmb bi il est l'heure que ñu xoolaat affaire ñu gën a xool affaire yi sax laay wax bu baax a baax mhm. parce que wax ji bëri na actuellement waaw waxtaan mhm. suñu jógee nag suñu làmb ak euh, waa nga xam ne mooy record record nag lu mu gis nee na ñu amoon ñu amoon victoire euh, saison bi ñu génn 2018 euh, 2019 nee na daal dafa mel ni promoteur yi ngeen waaw loolu daal li si am solo mooy que ni ñooñu nga xam ne dañoo daanu muy Balla Gaye jógee ci ndam rëg-rëg jóge ci ndam bari ñu ah ak yeneen la dëggeer de jóge ci ndam te boobu ba tey ñu amaat boo xoolee ñi ñi nga xam ne ñoom daam am na ci ay combat yaa ngi dégg loolu nag moo lay war ne kon làmb daal ah moom lay doxee waaye nag wax dëgg yàlla année balance ci Balla Gaye du gënal waa làmb année balance ci rëg-rëg wax yi noppi ki nga xam ne mooy la dëggeer tamit ñoom ñëpp ku ci ne soxla nañu sa combat parce que tamit ay mbër dañoo dañuy dundal làmb waaye nag làmb mooy doxee noonu tey gis nga Gris 2 daan woon na mais am na combat Modou Lo daanoon na si Balla Gaye mais am na fi combat ba digg roi des arènes tey te ba amaat sax combat ak Ama Baldé ak ñeneen ak ñeneen mu mel léegi tamit làmb mooy doxee noonu quoi mais xëy na ñoom seen i combat gars yi bëgg nañ ko xëy na heure bi moo des wala boog jubóo moo amagul par rapport ak adversaire yi ñu ngi keneen ki nga xam ne nee nañu am na problème bu rëy si biir làmb ji muy euh, ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux troisième tigre de France nee nañu ren si takku la ngeen moom lu may kon ñaareelu saison blanche boo ne dafa tegle Babacar nar a am si carrière maanaam daal ñu ngi koy dànkaafu ci mu moytu balaa balaa muy def deuxième année mm. parce que tamit loolu bu ko defee moom ah dina conséquence parce que tamit Gris actuellement. yaakaar naa ne retraite bi la gën a jege que ni nekkaat si làmb kon defe naa bu teglante ñaar bi mu bëriwul moom loolu du baax si moom waaw ànd ci bu ñu xoolee ci côté sport en tant que sportif mais ci côté finance bi tamit dina am loo xam ne ni du gën parce que tamit li tax li tax mooy que ni mbir bu ne da nga war di ay proposition boobu ba tey mais nag mbir mi comme li may wax rek jënd ak jaay la quoi ku ne yaay xool liñ lay jox ndax jaral na la wala jaralul hmm. suñ jógee nag fi nga xam lu gën parce que tamit li tax li tax mooy que ni mbër bu ne da nga war di bëri te yaakaar naa ñàkkul ay proposition boobu ba tey mais nag mbir mi comme li may wax a jaral hmm. suñu jógee nag nga xam ne moom mooy euh, euh, fi nga xam ne mooy dafa xëy dala ki nga xam ne mooy le policier du waar Lac de Guiers mu daal dama gis ne na Balla Gaye warul bëri ak ki nga xam ne moom mooy boña combat bi d'accord si waaw moom laa ko di wax xam ne na du combat moom daa jàpp na du lamb jëru sax ñu koy wax ne la moom loolu moom wax ci sonal sa bopp la parce que daa jàpp ne du combat xam naa nag la tax mu wax ko mooy comme moom booy ñan doon na daan géej way yéeg si ba ci moom moom mu daan ko moo tax mu jàpp ne kon balla amul trois nan day bëre ak ki nga xam ne ni booy mooy booy ñan moom loolu la dëgg loolu la mos a wax yàgg na ko wax nag da ko ba waxaat yàgg nay waxoo ko mel Babacar nag suñu jógee fi nga xam ne mooy les écoles dañu dem si Leewtoo TV Leewtoo TV nag amoon na làmb samedi ak dimanche samedi ki nga xam ne mooy caatu caatu yaraax moom moo daal ki nga xam ne mooy serpent si combat bu gaaw ki nga euh, dimanche moom ki nga xam ne mooy jamtéer yi moom la arbitre bi jox euh, victoire si ki nga xam ne moom mooy jet bi jet bi boobu nag nee na dina déposé le ko parce que moom lu ma yor gis daal moom nee na moom moo demee waaw vidéo yaa ngi ci Leewtoo TV samedi yéen ak moom combat moom lañ naan lutte fin bi rapidité efficacité moo ca am parce nag caatu yaram arbitre daa wàcc loxom mu fekk fa ki nga xam ni mooy serpent ma ne ko nag jaan ja xam naa tey daa amul dangar wala dangar ja dañ koo génn sànni moom daal kere jël bu gaaw a gaaw la ko daan ñu ne ne waaye dimanche de itam ñu ñëwaat ak Mohamed Diop làmb diggante jam téeri ak ki nga xam ne ni moom mooy jet bi waaye ñaari bëreekat lañ boole démb moom moo ko waa këram dañu ñu ko ñu ñibbi tamit gis na li nga xam ne ni mooy la na daal mbërëm moo daal donte arbitre bi na këri ndam mais daa jàpp ne daal jumte day def recours recours mu moo amoon démb fa nga xam ne ni moo ci arène nationale waaye daal bëri na ay xale yoo xam ne ni démb ah yëngal nañu arène bi samedi dimanche daal moom

mën na fi daal affaire Takida. Ah. waaw moom kay xam nga si taaki bagage am si tam mm, moom kere ñoo ko toppoon comme ñun lañ boole woon moom ñoo ko toppee jàmm gi këram. ba Marius Ndiaye yaa ngi dégg mu nekk euh, combat boo xam ne neexoon trop waaye lu ci mën a dégg xam naa ne goxam bëgg nañu ko te itam mbër la bi nga xam ne nii jar na bàyyi xel moom si taa ci lépp lu mu mën a doon mu ñëw nag fekk si Papa boo xam ne tamit waa Parcelles ñoo ko ëmb indi ko ñoom Faraak ñoom Batikaat ñu mel ne ki noonu mu ñuy ñaari mbër yoo xam ne. ci début ba ñu ngi doon raayante waaye nag ah actuellement dañ naan fi mu nekk nii nag il est l'heure de daa mel ni heure ba daa soxla nag mel ni keroog moom waxante nañu ba ma xënt nañu ku ne wan nga sa morom papa ne na ko dama lay duma si te ko da ngaa gàtt xam nga. comme laa lay def mu mel. li nga expliqué yooyu yëpp nag soo ko bëggee gis la ngay dem si Leewtoo TV. foofu la affaire yëpp di leere waaye war naa si kàddu yoon na leen di tàggoo ne jox daje suba incha allah mais balaa boo ma ne suñu ñaan mais soo mooy sama doom Mouhamed Diouf ñu instant di ne di chérie Khadija Diallo ñu sama doom Mame Diallo Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fall li nga xam ne mooy Ansek chérie Khoudia Seck depuis Italie Ramos yaa ngi si biir. waaw di nuyu ñëpp di ñaan ñëpp jàmm di wax que ni Sénégal yàlla fi yàlla fi jàmm. di suñu mbokku internet yi mais tamit di nuyu ki nga xam ne ni mooy Lambaye borom Petersen gis nga tey laxos bu ma sol moom moo ma ko jox maa ngi koy nuyu bu baax a baax di doom fisal mbaaraan di nuyu waa Petersen yëpp ñoom Babacar bu Mour la ma jib seen xam nga Mor Diouf Fallou Petersen ak comme ni ma ko waxee démb rek démb rek képp ku ne Petersen moo xam ngay commerçant wala ngay ouvrier wala tailleur ku fay nekk di yëngutu rek Babacar ak léegi ñu ngi di leen ñaanal parce que tamit ay jàmbaar ñu ngi ci benn bi di ñàkkante yàlla na yàlla defal jàmm bi muy internet yëpp tuuti yaay Sarr depuis Espagne moom tamit du ma ko fàtte moom tamit maa ngi koy nuyu yoo xam ne moom sax wax na ma bii ne dañ koy honoré defe naa le 8 mars am na benn ci ci ci ci ci làmbu jamaïcain bi loolu tamit di loo xam ne ni lu ñu neex la yaa ngi parce que moom comme li may wax rek yàlla dafa dogal mu nekk suñu jigéen maa ngi koy bu baax baax du ñuy yaayam depuis géej bi ak ay séeram yëpp du ñuy xarit Rose Ndiaye du ma ko fàtte mais Asi Diagne kenn du yow sama naar bi ci noor suuf mention spéciale yàlla na sa jàmm yàgg di nuyu internet Leewtoo TV yëpp à travers le monde di ñaan jàmm di leen jéglu démb nag ci direct bu dagg bi batterie ñu <laughs> dëgg yàlla waaye direct ba neexoon na trop te ci kàttanu yàlla di ngeen ci amaat yeneen yoo xam ne ni bu keroogee qualité dina gën a baax incha allah te di ko yóbbu di ko bëri. donc ba suba